cirë ngeen jëf ku yóbbu wuti carte électeur te fanaanal xam ne référendum fu ñu jaar mu am ci réew mi l'observateur nañu loolee kay kenn waxatu ko ndax yooyu la référendum Macky Sall mi ko sumb dugg na ba ci bopp ak baat keroog alxames la dajale aw ñoñom ca palais de la république mu dee ca ndajem secrétariat exécutif national ba ci leen ne lu waay xam baa nga mën ko booy bo nga def ko jug leen dëggu dëkk bi dem ci askan wi xamal leen ne référendum yi wax ci réew leer na ñaar fukki fan ceeru mars ca lay am te it li mu bëgg ba wax ko aw ñoñom moo di bu ñu yeggee ci référendum yooyee na askan wi yëpp ñëpp àndandoo wóote wooy l'observateur nañu ca ndaje ma moom Macky Sall dem na ci sax bay xamal responsable APR ne leen bi ngeen tolloo ci élection locale ku ci nekk ci yéen dama koo jàppale jox lay moyen moo xam ko par la wala ay jumtuwaay ba ñu bari ci yéen foofee la ñu déggee monsieur le maire yooyee seeni élection la woon référendum yi nag li ma bëgg ngeen xam ko moo di samay élection la ku ci jàpp danaa ko xam ku ci jàppul danaa ko xam jug leen dugg bi campagne tey li ma di xamal ca njëlbeen moo di bu kenn ci yéen ko dërëm naan ko campagne ci wala meeting ci dem campagne seen ni bopp daal moo di suñuy allié waaye yéen ñi nekk ci parti bi dem leen ngeen campagne seen mooy ni bopp l'observateur nañu daa wax ba daaneel rek ca la ab géwélam di honorable député Farba Ngom kàddu gi ne leen président Macky Sall wax na dëgg campagne gi référendum yi ab dërëmam waru cee dem nañu jug jàppale ko ba li mu bëgg mu am ko ndax ñun ñu toog fii ku ci nekk ci ñun président Macky Sall defal na la lu nekk l'observateur nañu honorable député Farba Ngom na sax ba yegg ci di tuddi tur ndax na boo demee ca Podor Abdoulaye Daouda Diallo nga fa Mansour Elimane Kana nga fa nga ba Linguère Aly Ndiaye nga fa Moustapha Diop nga fa nga dem ca Thiès docteur Augustin Tine wala Thierno Alassane Sall l'observateur nañu ngir waajal référendum yi ñaar fukki fan ci weeru mars yi tax na ca palais de la république dugg ba génn baa nga mel ne tulleeg màlle ne ginnaaw waa Benno Siggil Sénégal ginnaaw Benno ak ginnaaw coalition pour l'émergence ak kii di Jean-Paul Diaz tey jii président Macky Sall dana gise ak waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Macky 2012 woote wëy libération nañu référendum yooyu bu doon nit ñu ne président Macky solal na ko yére maanaam taxaw na ba noppi teg nañu décret portant avis maanaam dogal wala xalaat li ko leer daan moo du mës xët loi bi populaire nañu moom Macky bu génnee ci référendum yi ñu xam ne mbër la ne jamono ji ànd ak moom ak ñi àndul ak moom ku ci nekk yaa ngi toog sa ruq di nàmm sa ngànnaay ne président nee li mu bëgg moo di askan yu àndandoo dem wote ji ci référendum yi te ñëpp woote wëy ñi nga xam ne ànduñu ñoom ne ko du fi Sud Quotidien nañu projet réforme institution bi moo nar a tas parti socialiste ndax lu aju ci wàññi mandaam njiitu réew kii di Khalifa Sall bokk ci gis-gis ak Ousmane Tanor Dieng bi Macky Sall ne dafay wéyal mandaam juróom ba noppi yóbbante Macky Sall ay wax ndax nee na Macky Sall ak ni mu doxaleek li mu def dafay ñàkkal fayda kàddu politicien laas nañu doxali fa Sall rek moo juyoo xalaat ak Ousmane Tanor kër socialiste yi xar na Tanor toppi na ca dogal ba Khalifa Sall ak Aïssata Tall Sall ñoom ñaar nañoo bañ Doudou Wade nañ ci xët mu njëkku réew mi quotidien Macky Sall li mu def escroquerie politique la Mor ministre conseil mel na ko naan ko ci la tribune neel astafurla ndax ñun ñi nekk ak président Macky Sall jege ko xam nañu coono bi mu daj laata mu muy nangoo xalaat bi tukkee ci conseil constitutionnel le témoigné nañu fi nekk ni kay wax ji mën naa jeex ndax moom Macky Sall ñiy jóg di ko song ak di ko ŋàññi li leen di tontoog ni mu leen di tontoo moo di ab liggéeyam journal bi dañu booy seet moom Macky Sall ñeenti atam ci bopp Sénégal matagul waaye bu ñuy seetlu li mu fi defagum ci infrastructure daanaka jege na li fi Abdoulaye Wade def ci fukki atam ak ñaar baa mu romb ko le témoigné nañu noonee wuy ñoom ñu jaar fa ne nañu woote no mu di Khalifa Sall Cheikh Tidiane Gadio Serigne Mansour Sy Djamil ak Aïssata Tall Sall Mouhamed Ndiaye njiital mouvement Rahma nañ ci l'observateur moo tax fi mu nekk ni lenn rek moo ñu war moo di ñun ñëpp ñu jóg muyee la mayo wàcc ci base bi wax ak askan wi ba référendum yi leer ci ñoom nga xam ne buñ ca yeggee ñoom ñëppay àndandoo woote ci woote wuy ni ko président Macky Sall bëggee Mouhamed Ndiaye responsable APR bi ca Saloum tegal ñu ci ne président Macky Sall ni mu doxalee ci coowal mandaam bi noonu rek la a doxalee ba bëgg mu def safaan wa Jean Paul Diaz tojatina dëkk bi ubbil populaire démb ci télévision Futur Média émission face to face ak Aïssatou Diop Fall ca la ne moom Jean Paul Diaz parti politique yi ci réew mi fonds politique yi lañ leen di financé Jean Paul Diaz nañ jiital parti ñu ca bëri ay corrompu la kenn daal la ca mën a génne wax ne bokkul ci les corrompus mu di Alaaji Malick Gakou njiital grand parti parti réew mi njiitam ji Idrissa Seck dégg na yi sa sekk réer gu mu réer ak jaxasoo gu mu jaxasoo moo tax mu dugg léegi ci njaayum dorog Abdou Karim Sall ne ko ci la tribune moom yi sa sekk nee na daa bëggoon a doon quatrième président bu Sénégal waaye quarante-quatrième président